aouzu billah min asheytaan rajim bismillahi rahmaani mbokki jullit yi mbokki taalibe yi ci ndigalal sëriñ abdoulatif jenn mi nga xam ne mooy xalifa maam Cheikh Issa jenn ci kaw suuf ñuy ñaan yàlla guddal fanam te may ko wér ak ci ndigalal sëriñ ibra xujja xalifa Cheikh ahmadu ndumbe xabbaan moom it ñaan yàlla guddal fanam te ko wér ak ci turu mbooloo mi tudd jamiyatu tawdiixi wa nashri india injaazaati Cheikh Issa jenn ñooy yëgal mbokki jullit yi ak mbokki taalibe yi yépp ni ginnaaw ndigal rot na bis bi nga xam ne dañ ko doon amal ci foire bi te mooy journée culturelle Mame Cheikh Issa Diène mu waroon a am dimanche le 15 mars tombé ak fukki fan ak juróom-ñeent ci rajab bi ci ndigal kilifa yi ak ci turu mbooloo mi aj nañ bis boobu ba yeneen jamono ngir umpulewu leen yéen ñëpp ni dafa am feebar bu tasaaroo ci réew mi ginnaaw ndigal jib na nag te ñun ay taalibe rekk lañ fas nañ ko yéenee aj ba yeneen jamono waxtu wuñ ko ajjee nag danañ ko yëgal mbokki jullit ak mbokki taalibe yi ñuy ñaan yàlla nag feebar boobu tasaaroo ci réew mi te tiital leen ci barkeb suñu kilifa di Cheikh Issa Diène yal na ko yàlla saafara ñi ngi profité ci occasion boobu it di gërëm bépp mbokkum taalibe wala bépp jullit boo xam ne participé woon na ci ci alal wala xalaat wala nu mu ci mën a participer rek ngir lu bëggoon a jagal bis bi kilifa yi jot nañ ci kuréel gi jot nañ ci ñi ngi leen di njukkal di leen ñaanal yàlla yokk seeni xéewal te defal leen tawféex wasalaamualeykum wa rahmatullah